merci. Je m'appelle euh, Sam Besset. Je suis inspecteur de spécialité de la formation professionnelle et technique. Je suis en service à l'inspection d'Académie de Thiès. Je suis également expert en éducation et en formation. Euh, je suis là aussi en qualité de vice-président du jury pour la première euh, certification des apprenants du, du projet Archipelago. Euh, nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'il y a plusieurs étapes qui ont été menées, notamment la présélection, la sélection définitive donc, des participants à la formation. Donc la formation a été conduite de bout en bout depuis six mois. La première corte donc, des agents de conduite de poulet de chair euh, donc, euh, a vu le jour euh, depuis six mois. Et aujourd'hui, donc, nous procédons à la première euh, certification de la première cohorte. Donc nous avons une cohorte de, donc de 34 euh, candidats. Euh, ces 34 candidats donc, vont, seront évalués sur toutes les compétences euh, du métier. Et, euh, et, euh, donc, au terme donc, de la certification, euh, si toutes les compétences sont validées, ils vont spécialisation, qui est un diplôme donc, reconnu par l'État du Sénégal. de courte durée qui des compétences professionnelles et d'aller sur le marché donc euh, des programmes de formation écrits selon l'approche par les compétences. Nous partons des études de planification euh, qui permettent de voir quels sont les, les besoins, les besoins en compétences des entreprises dans la région de Thiès. C'est à partir de ces besoins, c'est à partir de ces études qu'on identifie les besoins en formation. Et à partir des besoins en formation, les compétences seront identifiées et des programmes seront développés. Donc les CS, que nous sommes en train de dérouler dans le cadre du projet Archipelago, nous avons l'analyse de la situation de travail, référence de métier, référentiel de compétences, référence de formation, aux jeunes d'avoir euh, une culture d'entreprise, d'avoir donc dans la formation, ils pourront avoir donc des notions importantes pour la création de plans d'affaires et pouvoir donc euh, s'investir dans l'auto-emploi. Et c'est important parce que ces jeunes qui sont en train d'acquérir des compétences professionnelles, euh, ils ont un certain savoir-faire, ils peuvent créer leur propre entreprise. Donc euh, c'est un moyen de permettre aux jeunes de se fixer dans leur territoire, de mener des activités génératrices de, de revenus. S'ils sont encadrés, c'est sûr que beaucoup de jeunes vont suivre ce modèle-là, cet exemple-là. Vraiment, je pense qu'au au terme de, de cette certification, ils pourront peut-être se perfectionner un peu en entreprise et se lancer dans l'automobile. Parce que c'est des, métiers, en tout cas porteurs, qui peuvent générer, donc beaucoup de ressources. Je pense que nous gagnerons à encourager les jeunes à aller vers la formation, à acquérir des compétences professionnelles, à avoir quelqu'un qui a un métier, il ne va pas chauffer. Et c'est des métiers porteurs parce que tu produis des poulets de chair pendant les événements, en dehors des événements, tu peux vendre et gagner de l'argent. Euh, les jeunes e. en est de même pour euh, l'agent conducteur de, euh, de poule pondeuse. Également, c'est des métiers vraiment qui sont porteurs. Ceux qui ont choisi également les métiers liés à, à la production horticole, Euh, nous sommes dans la zone des Niayes. Donc, c'est des jeunes qui peuvent s'insérer euh, dans les entreprises, soit par l'autre emploi, bien par l'emploi salarié. Mais je pense que s'ils euh, sont un peu accompagnés dans le cadre du financement, peuvent avoir des entreprises individuelles ou bien des GIE et pour créer leur propre entreprise et s'insérer dans, le, euh, donc dans le milieu professionnel. Euh, je pense que quand même, euh, c'est une innovation de taille. Les formations de, de courte durée, c'est une innovation de taille. jeunes de se former rapidement en six mois d'acquérir donc des compétences professionnelles et de trouver un emploi, soit l'auto-emploi bien l'emploi salarié. Et c'est important, ça permet aux jeunes de rester dans le territoire et c'est des métiers euh, porteurs. La chambre de commerce, euh, la chambre de commerce d'unité d'agriculture de en collaboration avec Côte Armor, je pense que l'idée est très pertinente. Peut-être dans les prochaines formulations de projets, les gens peuvent améliorer, mais ce important. En tout cas, c'est un acquis de taille. Ça permet de réduire le nombre de jeunes qui migrent pour aller à l'extérieur, alors qu'on peut rester chez soi, faire une formation, avoir des compétences, gagner honnêtement sa vie et éviter d'aller donc se noyer dans l'Atlantique et autres. Je pense que ces jeunes-là se sont accompagnés, ils feront un travail extraordinaire. Dans le même ordre d'idée, l'État du Sénégal a déployé beaucoup de moyens techniques et financiers, tout cas pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, de les former d'abord et de les accompagner vers l'emploi. Nous pouvons euh, euh, citer le Fonds de financement de la formation professionnelle technique, 3FPT, qui est en train en tout cas de financer la formation et l'insertion de beaucoup de jeunes. Euh, il y euh, euh, la, chambre de commerce, euh, la chambre de commerce d'unité d'agriculture de Thiès, en collaboration avec Côte Armor, je pense que l'idée est très pertinente. Peut-être dans les prochaines formulations de projets, les gens peuvent améliorer, mais ce qui a déjà fait, c'est très important. En tout cas, c'est un acquis de taille. Ça permet de réduire le nombre de jeunes qui migrent pour aller à l'extérieur, alors qu'on peut rester chez soi, faire une formation avoir des compétences gagner honnêtement sa vie euh, sa vie et éviter d'aller donc se noyer dans l'Atlantique et autres je pense que ces jeunes-là se sont accompagnés ils feront un travail extra extraordinaire dans le même ordre d'idée l'État du Sénégal a déployé beaucoup de moyens techniques et financiers en tout cas pour permettre aux jeunes de trouver un emploi de les former d'abord et de les accompagner vers l'emploi Nous pouvons euh, euh, citer le Fonds de financement de la formation professionnelle technique, 3FPT, qui est en train en tout cas de financer la formation et l'insertion de beaucoup de jeunes. maa ngi tudd Samba Set euh, inspecteur enseignement technique formation professionnelle. maa ngi nekk inspection d'académie de Thiès. maa ngi liggéey également ci formation expert en formation. expert en approche par les compétences. Voilà, euh, Djeredjef, euh, nous remercions donc euh, cette belle collaboration entre euh, la Chambre de commerce et d'agriculture de Thiès et les Côtes d'Armor. Euh, ils ont eu donc à lancer un appel d'offres pour recruter donc des opérateurs de formation. Euh, ceci a été fait, mais aussi ils ont recruté des jeunes pour euh, plusieurs métiers, parmi lesquels donc nous avons am nañu xale yu ñu formé dañ leen tàggat pour ñu mën a yar ay ginaar ginaar yu ñuy jaay wala ñu yar ay ginaar pour ginaar euh, pour am ay nen euh, am na nag plusieurs cohortes yoo xamante ni jaar nañu fii ci centre d' application pratique de l'ENFEPS fii lañ leen di formé formé nañ leen nag lu mot six mois léegi mokkal nañ euh, métier bi tey nag dañ leen di natt pour ñu am seen lijaasa seen certificat certificat bi mu ngi tudd certificat professionnel de spécialisation euh, monsieur le président de la république Macky Sall moo ko créé par un décret. c'est des formation yu courte durée yu gàtt la six mois rek nga am sa compétence professionnelle nga xareñ ci benn domaine nga mun a liggéey donc tey dañuy natt xale yi euh, depuis suba la ñu démarré jury bi xale yi fanweer ak ñett lañ euh, ñoom ñëpp ñu ngi def kii poulet de chair la ñuy def. Euh, condition d'examen yi nag euh, sant yàlla jury bi ñëw na candidat yëpp ñëw nañ et puis direction école bi mooy euh, moom mooy le chef de centre bu ñu ñëwee xool gis nañu matériel bi yëpp intrant bi ak matière yëpp yëpp am na dara manqué wul donc examen bi mu ngi déroulé correctement waaw def nañu tuuti def nañu tuuti situation évaluation mais correcteur yi ñu ne xale yi daal ñu ngi góorgóorlu bu baax am ñu yaakaar vraiment ñu amee xale yi suñu paree fii ba vendredi ñu jox leen seen i attestation euh, ñoom léegi à part dorénavant mun nañu yëngatu ba ci wàllu entreprise individuelle mooy auto emploi walla aussi sax mun nañu emploi salarié en tout cas mokkal nañ liggéey bi li leen di seede nii à partir de certification bi ku si jàll mokkal compétence yépp ñu ne xariñ nga ci domaine bi yow war ngaa mun a dem liggéey et loolu lu am solo la parce que day tax Euh, xale yi xareñ am xëy toog seen réew tedd si biir réew bi duñu dem immigré dem ci àll bi fii zone des ñaay la xale yi suñu amee compétence rek incha allah mun nañu am fu ñu jàpp et ñu tedd ci am ci ay revenu bon en tant qu'inspecteur d'attribution man damay kontaan ci loolu parce que jël nañ xale yu bëri am na xale seen jàng soriwul soriwuñ am na ñoo xam ne sax am na ay étudiants mais amuñ benn compétence amuñ benn qualification ñu jël leen dugal leen ci centre de formation yi ñu former leen ci métier loolu lu baax la dina tax xale yi am compétence am fu ñu jàpp euh, lu des rek xanaa ñu tàggaleen ci wàllu entrepreneuriat mooy nga yi entreprise nga am culture d'entreprise ñu gunge la pour nga tabax sa entreprise boobu bokk na ci formation bi ñu ci école bi parce que def nañu module entrepreneuriat mais mun nañ ko renforcer ku nekk élaborer plan d'affaires am mu wut financement mu liggéey mun na nekk entreprise individuelle comme ñoom mun nañu boole aussi ñu wut seen entreprise wut financement euh, incha allah am naa ci yaakaar xale dina am fu ñu jàpp. Aline Diop waaw certificat yi ni muy demee. comme euh, man fii laay liggéey tubaab Pékou parce que boo xoolee maa ngi nekk ci Ginaar depuis 2006 looloo tax euh, bi examen bi amee bon monsieur Dieng mooy directeur fii après moom moom ma convoqué mu bokk ci jury euh, bi pour mën a témoigner ñi nga xamante ni bon dañuy def examen bi xëy na nag man boo xoolee pratique bi laa def mais ñii ñooy def examen bi mais xëy na am na loo xamante ni bon mun naa ko xam te ñoom duñ ko xam ci côté boobu ci laa leen di dimbali. léegi euh, bon examen bi boo xoolee depuis huit heures la commencé woon li ñu jot a jëlagum ci élèves pour ñuy def euh, examen bi. vraiment gis nañ ci euh, ay taxawaay yu baax parce que mën naa ni bu ñu paree li ñu leen di laaj lépp ñoom dinañ ko trouver en même temps dañuy ñëw ñu leen bagage yaa ngi noonu te boo xoolee lépp loo xamante ni war nañ ko ci def bon dinañ ko ci def